salaamaaleykum maa ngi nuyu jullit yi nuyu mbooloo mi yëpp man la allimu Diallo dëkk Kanda am tawat boo xam ne daal li ñuy wax jalis la léegi nag man Kanda ci commune de Kahone la dëkk bokk commune de la bokk Kanda Fodé Ba département de Guinguinéo je crois waaye man daal traitement bi dama daw ba sonn. la ma yoroon yëpp def naa ko ci waaw mu toll nii. damay ñaan di waaw suma réunion yi ñoo yàqu. waaw léegi nag réunion yi comme dañoo yàqu damay jóg fii di dem dakaar hôpital bii mën na doon dem fii hôpital Kaolack bi trois séances lañ ma may ñu dootuñu ma mayaat ay séances il faut fa lekk ñu obligé ma dem dakaar dem ci clinique yi ay ICP laay dem. sa coût lu mu bon bon da nga def soixante soixante quinze mille wala soixante soixante dix mille te léegi loolu yëpp boo xoolee xaalis a koy def. wax ne dama ko yéex a gis waaye daal juróom-ñetti at weer maa ngi tëdd ak yi ma nekk nii waaye nag traitement yëpp maa ngi koy def ordonnance yeeg euh, prélèvement analyse yëpp def naa ko dërëmu kenn nekku ci nag waaye nag damaa dem ba fi ne damaa sës. amatuma lu ma lu ma defal sama bopp moo tax ma ne traitement bi ma doon def nii Kaolack fii dama doon bu ma liggéeyee tuuti ma am dara bu ñu ma bindalee bulletin d'examen ma dem defi ko parce bu boucher la yàpp laay jaay dem naa ba mujj mënatuma attanatuma liggéey bi parce que feebar bi manifesté wu na sama kaw looloo tax mën a xaaral mu commencé dugg ci waaw mais analyse yeeg yëpp def naa ko amul kenn ku mu ciy dimbale service sociale da nga fay dem dañ lay wax loo rek dañ lay wax loo lu ñuy def duñ ko duñ la dimbale lu ñu lay wax lu ne dañuy foog ne ne yow mooy loolu dañ lay dawloo waaw dañ lay dawloo te buñ ne service social ku jaaxle moo war a ñëw foofu noonu mais da ngay jaaxle nga dem fa ñu gën a yokk sa jaaxle xanaa bon volonté yi xanaa bon volonté yi samay xarit samay am di jàmm ku ci am yónnee ma par Orange Money bu ma amee dajale ay deux cent mille trois cent mille ma dem defi ku deux séances ma daw ñib si waaw def ay deux séances fois par semaine xaalis bi jeex ma daw ñib si comme kaw la Dakar dëkkuma fa sama papa nekk fa sama yaay benn mbokk nekk fa kon léegi damay obligé ma daw ñëw kaw la ñib si fii ndax sama kër sama fi nekkee danaa tëdd danaa yeewu danañ ma mën a toppatoo mais kër jàmbur boo fa nekkee bon day métti quoi kon te yow yaay fere sa bopp sa lekk ak sa naan yëpp yaa koy fere kon balaa caa boo demee ba jeexal. bon wax dëgg yàlla su ma leen am naa mbokk bu ma bu ma ëpp doole fen naa parce que man maay taawu kër gi man maay euh, soutien de famille bi fii ngeen toog nii tey di jàkkaarloo nii. man la ko yàlla may ma jënd ko ma tabax ko ma andi fi sama papa andi fi sama yaay yor samay rakk yor samay doomu rakk ba yàlla jël fi sama waajur bu góor ba tey maa ngi porté volonté bi maa ngi ko jël en charge comme nag loolu la yàlla dogal ndax feebar buy ñëw du tàggoo bu la yàlla tegee nattu ah da ngay nangu rek man fi mu toll nii Kepu doomu ma bu mu mën laaj maa ngi laaj ku ma mën a dimbale rek su fekkoon ne moom man mënoon naa toog opportunité moom damay na ko mu ngi def service social bu baax waaye mbirum jalis région bu nekk am na rajo bu ne na leen dimbale may leen ñu am fu ñu benn centre jalis boo xam ne dinañ dimbale askan yi parce que nit ñaa ngi sonu sonn te yow fi nekk yow hôpital bi mënuñu satisfaire nit ñi da nga gis ku joge fi ku joge Tamba joge Matam ku joge ba fungulimi ñoy damal Dakar Sofa fa amul mbokk noy def rank maire bi amna ay ñu fi ñëwoon ño xamne wa waa maire bi attaché wu ah wax ko ko mu ne ma dem ci maire bi wax ko ba tay gisuma maire gisatu mo le loolu bon volonté dal duma ma leen deug ñom ñomay dimbalé mam as neew ma am asku ma dem dem def jalis jalis bi moom c'est obligatoirement waruma toog deux semaines yi ma deful jalis jalis moom ala kulli en tant que yaa ngi dund da koy def waaw lu mu néew néew néew néew da nga def deux fois par semaine waaw lu mu néew néew néew danga def deux fois par semaine wala trois fois par semaine su fekkee ne am nga place Kaolack nga gis ne fii nga dëkk da nga mun a dem jalisé wu nga ñib si mais imagine toi xoolal fi mu ne li may wax yow nii maa ngi koy wax sama waa ji nii sama yaram yëppee métti ngir lan yoon oto yi oto yi nga xam ne jaabante bi rek sama yaram yëppee métti bokkut ak sama feebar bi waaye nag dama koy jox yàlla nit moom lu dal lu ne ah danga koy jox borom rek comme jàmm mom mom lu boppam du la dal nang koy jox borom bi rek sàkku ci jam jammi ñu dimbalé la comme lo sa bop kon dëgg yalla mom bëgg na ko mu dimbalé waaw lool da moy sama solution su ngeen ci amé solution dal ma ngi leen di ñaan ngeen yu jotali ko ñi ngeen xamné mën nañ ma dimbalé te yalla tax waaw. ñoo Mariama ñu ak ñoom jël fa ndax ñoo ñoo xaw xawma leen. jaar ma seen tur yi xaw ma leen ma dem ñaan leen te man ñi ma nekkal yii li ma la wax man maay taawu kër ñoom ñëpp maa leen di woo waaw maa ngi woo Mariama Sarr di woo Diène Farba di woo Mama Ousmane Noël ñoom ñëpp leen di woo ku mu dimbale rek ñoom rax ma ku lu dimbale rek yàlla yàlla lay fay Dar printr-un nimeni mult mă adem. Te printr-un ni sonul na lo lo lo. Lo lo lo lo. jërëjëf waaw maa ngi woo Alioune Badara Meng mo mi nga anu moy gouverneur Kaolack mu dimbalé ma soutenir ma ci sama maladie bi ni parce que sama ma dem ci bureau dama don dem Ma ngi bëgg dem tay ni sax ci ci ci euh, service service service régional maa bëggoon dem service régional médical maa ngi ko bëggoon a dem tey mais yaram bi métti moo tax nangu mënumaa dem pour jéem a ñaan audience ak kii bi ñu dimbale man bu ma amee place mars amee place hôpital rek pour dialyse bi rek sant naa yàlla jërëjëf.